Nous remercions le ñu président de la république le gouvernement est fort de solidarité par rapport aux artistes franchement 2,5 euh, milliards euh, aujourd'hui en décembre c'est très important donc nous ngi koy mais en même temps nous ñu le gouvernement bi comprendre que nous sommes là il faut aussi que nous prenions l'acte où nous sommes. L'acte où nous ñu Nous te lan la ñuy où simplement li ñu war a comprendre mooy ñiy yëngu ci wàllu musique ak aada en général. du ay nit yoo xam ne ñuy tàllal loxo lañu xaalis bi ñu leen jox euh, duñu ko delloo soxla nañu ko mais li wóor mooy duñu ay nit ñuy tàllal loxo seen problème tey li ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ñu liggéey ay nit lañu yor industrie yor njaboot. am ay nit ñu yaakaar ci ñoom donc li ñu bëgg mooy si ñu gañe

day ñëw taxaw ndax dégg na deux milliards cinq mais n'oublie pas que ëpp nañu téméri junni doomu aadama donc bu séddale bi jaaree yon kenn du am juroomi junni ku ci réveillonné tey tay na do fin d'année fin d'année bu neex alors donc il faut pas que ñu japp né nit ñi euh, xaliss mom moy régler seen problème ñoom ñaanuñu xaliss li ñu ñaan moy ñu bàyyi leen ñu liggéey et je crois que loolu mën nañu ko organiser parce que nak protocole sanitaire mën nañu ko tëral xam nga gor do dëkk ci di jox gor da nga koy tek ci yoon ngir mu mëna gagnel bopam euh, limuy dundé et ñom ci lolu lañu nek nekk nga dafay am ben adage buy wax né euh, si vous avez la tête en forme de marteau euh, tous les problèmes pour toi tu les perçois en forme de clou nga yaakaar ne xaalis rek moom mooy régler problème yi alors que ñom liñu soxla moy ñu bàyyi leen ñu liggéey donc yaakar na né tay génné nañu 2 milliards 500 pour artistes yi mbeur yi ñu ngi taxaw war nañu leen bayyi xel euh, ñi ci walu nap gi ñu ngi taxaw war nañu leen bayyi xel ñi jaay gerte euh, baykat yi ñu ngi taxaw ngir seen jëgu gerte donc je crois que il y a tout un tas de de de de de préoccupation boo xam ne war nañu fi jaare ñu régler ko mais encore une fois le monde de la culture ne demande pas de l'argent le monde de la culture demande qu'on les laisse travailler uniquement